asalaamaaleykum mbokki internet bpactu point com yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di leen dalalaat jàmm tey lundi 11 novembre 2019 ñu ñëwaat ak yéen ci seen ay yéenekaay ma ci ànd ak Amina Ndiaye naka gàmmu gi Ndiaye. neex rek la def macha allah comme niñ ko daan amalee saa su nekk rek dem ziyaara ji euh, ku tedd ki demoon nañu nag fekk fekkee ji ko fële na le euh, ci Kaolack di ñaanal ñëpp jàmm ñu yàgg ko di ko fekkee. demoon nga ci kaw Kaolack waaye man mi wër Sénégal man moom dem naa fépp Amina Ndiaye bàyyiwuma fenn. boo ko waxee gëm naa ko ndax sa tànk daa gaaw. noonu la daal di demee dañu koy ubbee nag ak journal bu l'observateur Amina Ndiaye tey nag l'observateur Amina ay mbirum lekk la ñu indil wàllum lekk FAO mu ngi xamal ni que Sénégal mi ngi nekk en menace Amina Ndiaye. FAO ginnaaw ba ñu paree benn réunion bu ñu doon amoon ci organisation des nations unies ñoom nag FAO ñi nga xamante ni ñoom ñooy gérer ñoom ñooy gérer ci li nga xamante ni mooy nekk ci wàllum alimentation euh, fii ci suñum réew ñoo ngi yëgal ni Sénégal nekk na nag sous la menace menace boo xamante ni dafa lié à l'insécurité alimentaire ñuy wax ni nag loolu li ko waral mooy ndox mi nga xamante ni jotoon na manqué ci début saison bi ba tax na lu toll ci 975 personnes loolu touché na leen 1451 personnes yi nga xamante ni ñoom la ñu woon au mois de juillet pour ñu gën ci bàyyi xel. noonu la demee amee Amina Ndiaye manque ndox bi moom ñun ñëpp lañu koy yëg bu ñu yeewoo parfois bëgg a sangu sax dañuy xaar. boo amee boo toogee ba ngoon gi bëgg sanguwaat da ngay xaar Amina Ndiaye muy loo xamante ne nii menacé nañu ci kon ñu bàyyi ci xel bu baax a baax. ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax bu ko defee rek nag comme ni ñu ko waxee alimentation moom dafa nekk loo xamante ni dafa am solo ci doomu aadama Omar bu fekkante ne li ngay lekk sa biir bi euh, baaxul wala demeewul noonu rek di nga ko yëg. noonu la demee biir moom loo xamante ne la benn yoon la rek bu fa dara duggee. di ko yëg bu baax a baax bu dee lu baax la bu dee lu bon la tam da koy gën a yëg yow yow foo nekk yow da nga koy yëg Amina Ndiaye waaye chilien bi nga xamante ne ni moom lañ jàpp ci diggante frontière bu bi ak bu Sénégal mu foo faux passeport Amina Ndiaye wàllum terrorisme bi ñu doon xeex mu ngi mel ni daal gaañ ñu ngi ci jub bu baax a baax a baax. lutte contre le terrorisme la Sénégal wax ba tax na benn syrien bi nga xamante ni moom la yoon tegoon loxo euh, ci diggante frontière Sénégal ak Gambie tey nag journal l'Observateur mi ngi xëy di fësal nan la def ba am changement identité nan la def ba am faux document nan la def ba am benn collaboratrice sénégalaise fële na ci Banjul ku jënd l'Observateur ci page page 4 di nga gis lépp. noonu la daal di demee Amina Ndiaye wàllum tarif international bu dorog bi nag xam nga fan yii passé yaa ngi doon dégg ñu ne jàpp nañu 700 kilogrammes dorog Amina. ñooñ nag journal bi identifié na leen kenn ku ci nekk waaye nag dañoo muur seeni kanam yaakaar naa ne seen ay tur a ngi ci journal bi Amina Ndiaye. affaire 700 kilogrammes cocaïne bi nga xamante ni tegoon nañ ko loxo ci géej gi mu nekk nag juróom-ñaari doomu aadama yoo xamante ni euh, dencoon nañ leen ñu xëy nag l'observateur di indil euh, juróom ci ñoom yi nga xamante ni nag xam nañ seen identité euh, fan la ñu nekkoon ak lan la ñuy def ba ci ba ku ci mel ni Lac Maurice Sène ak kan sax Faisal Bonnemort seen Robert Chapman Amadou Amadou Mbuub John Silor juróom ñooñu la ñu fësal te ku jënd journal bi di nga fekk détail yëpp ci biir. noonu la daal di demee Amina Ndiaye muy juróomi nit yoo xamante ne nii yoon daf leen teg loxo ginnaaw ba ñu doon awale ab drogue wala sax ay drogue laa wax ndax ab mooy benn ay drogue ci géej gi Amina Ndiaye am na ci benn doomu senegal nag muy wéy ci turu Amadou Mbuub ak ay ñeneen ci ay njooñam yoon jàpp na leen teg leen loxo waaye nag Amina Ndiaye journal bi yemu ca. ku ne xam na ni bu ñu gàmmoo ba ci lendemain bi Amina Ndiaye champ de course dañu fay amal ak toog jataay ñu waxtaan waa mustaashidit wala mustaashidaat moom Serigne Moustapha Sy mi ngi yëkkati ay kàddu doon ko jëmale ci kii nii di suñu njiitum réew Macky Sall ak kan ak Aly Ngouille Ndiaye que ñu bàyyi provocation yi nga xamante ni ñoom ñoo ngi koy def Serigne Moustapha Sy xamle na loolu ci ci biir waxtaan bi nga xamante ni doon na ko amal ci gàmmu googi Amina Ndiaye Serigne Moustapha Sy moom moom nga xamante ne nii diine rek moom moo ko ñor lii boole askan wi rek moom moo ko ñor yëkkati na ay kàddu daal di ci jëmmale nag wax na ak le président wax na ak Aly Ngouille Ndiaye ku ci nekk wax na ak yow nga déglu waaye yamu ca dugg na ci biir guide religieux yi di ci wax ak Cheikh Modou Kara Mbacké di ko xamal ni kilifa warta wax loo xamante ne ni dañu lay xeebe waanaam am na ay kàddu yoo xamante ne ni moom jàpp na ni kilifa waru koo yëkkati Amina Ndiaye ba tey ci biir kàddoo moom Serigne Moustapha Sy mi ngi yëkkati ci ay kàddu di ko jëmale ci Cheikh Modou du Mbacké di ko xamal ni nit kat boo jiitee dafa am nooy doxalee wala nooy waxalee dem na sax banaan ko bàyyi affaire comédie ji nga xamante ni moom ngay def moom Serigne Moustapha si moom moo wax loolu mais nag tax na ba kii nii di Serigne Modou Kara Mbacké moom jàppul wax yi nga xamante ni kii wax na ko muy dara ba tax na nee na sax wax yooyu nekk na wax boo xamante ni euh, jarul tontu ndax Serigne Moustapha Sy euh, mbokk la xarit la mag la lépp la loolu daal la ci teg. Amina Ndiaye boo dee bay dégg sax ñu koy wax ñu ne ñoom ñoom ñoom ñaar am nañu lien boo xamante ne nii seen ay diggante ñoom ñaar seq nañu waxtaan dañuy waxtaan ñoom dañuy déggoo ci yu bari moo tax daal man jàpp naa ne bu koy waxee itam da koy wax rek pour bëgg nit ñi xam ne ñoom ñaar benn lañu pour nit ñi xam ne que ñoom ñaar leen lie du tey. ndaxte bu ñu waxee Cheikh Ahmadou Bamba ñu wax maam El Hadj dañuy xam ni benn lañu Amina Ndiaye ñoom ñaar ca kaala gu weex ga waaw xam nga niñ koy faral di waxee rek nit ñi ñoo fi nekk di réeroo mais ñoom réeroo wuñu seen biir euh, te sax Serigne Moustapha si tey jii bu fekkante ni am na lu muy wax si Modou Kara Mbacké doog koy wax ñoom ñaar mu ñam seen biir ñoo xamante ni euh, ñoom daal ñoomu nee na ñoo ñu gën a bokk deret ñoo ñu gën a xam yoon bi ñoo ñu gën a mën a waxtaan seen biir ñun daal ñoo fi war a mën a nekk daal bàyyi lu nit wax rek ñu garaawal ko ba tax na tey jii moom la ñu xëy euh, tiitare ko ci l'observateur te xam nga nit ñi moom dañoo gaaw wax moo tax nag Serigne Modou Kara Diarra joxe na réponse boo xamante ne euh, tarkaal la di wax ni kooku moom magam la xaritam la léppam la. loolu moom bu ko waxee ak bu ko waxul àdduna yëpp xam nañu Cheikh Ahmadou Kara Mbacké ak Serigne Moustapha Sy ay xarit lañu ay doomi ndey lañu ay wëlëre lañu Amina Ndiaye. ba tey ci gàmmu 2019 waa Medinatu Salaam Aïda Diallo ak Serigne Saliou Thioune maanaam Serigne Saliou Gueule Tapée di taawu Cheikh Béthio Thioune ba tey ñoom ñaar ñëw bokk ab ànd wala mënuguñoo bokk mbalka jàpp nañ ñu ñaari kuy lañu ba Aïda Diallo moom nopp nee na selaw daal Amina Ndiaye ci ruqam nee na selaw ci ruqam loolu journal l'Observateur xëy di fësal gàmmu ji fële na la ci Medinatul Salaam kii nii di Serigne Saliou Thioune def na ko ci côté am soxna Aïda Diallo def ko ci côté am jàmm nag am fa kenn xoosul sa moroom kenn cokkaasul sa morom cantaakun yëpp def ko ci jàmm ak salaam ginnaaw ba fa gendarme yi teewee mais nag ñoo ngi xamal ni kii nii di soxna Aïda Diallo dafa mel ni presse bi mënuñoo jot ci moom da leen di daw daal mënuñu fexe ba teg ko bët fenn wala mu wax sax ñu dégg amuñu ko ci gàmm gi. loolu lañu xamal ci journal bi naa Ndiaye muy loo xamante ne nii ah lu dul jàmm jàmm rek moo ko gën te mbirum diine moom mbirum diine la rek nañu gën a diisoo gën a déggoo ñu waxtaanee ko rek loo parce que coowu kër la na yem ci biir kër gi rek. coow kër la na yam ci biir kër yi bu ko defee jàmm ne ñooy coow ba na jub dara bañ a xeeñ. waaye nag Amina Ndiaye cawakaam dañ faa jàpp ñaari guinéen ñaari guinéen la ñu jàpp fële na la ci wakkaam guinéen yi kenn ki mi ngi tudd euh, Fatoumata keneen ki tudd ay Aïssata Ba ñoom ñaar nag dañ doon jaay dorog kenn moo leen ko doon livré muy benn taximan seen jëkkër ñoo nekk Sénégal fii nii loolu moo tax ñu teg leen fii loxo euh, mais nag ñoo ngi woo taximan bi nga xamante ni moo ngi leen ko doon livré. laa ilaaha illallaah mi naa njaay man Sénégal chaque jour bu ñu lee rey waxuñu sàcc ñu ngi wax dorog mais ñun su dëkk bi la te ñu ko fiy def buñ dee diis. bu ñu dee dis Amina Ndiaye wij ji du ñu ay sénégalais. dañ doon wax sax naan góor ñi la mais léegi jigéen ñi sax dañ ciy commencé di ci gën a fës li ma gën a jaaxal. noonu la daal di demee nag Amina Ndiaye nañu jàll nag Amina ci journal bu stade. Amina Ndiaye démb suñu fierté bi dafa defa ci mën-mënam dafa ci loo xamante ne Amina Ndiaye démb Sénégal moo kontaan match la woon boo xamante ne da doon dox ci diggante euh, Liverpool ak mën sa City. 3-0 lañ leen dóor Amina Ndiaye Sadio Mané moom moo dugal troisième but bi. fawoon na woon na woon fa woon yoon du bàyyi ndox 3 bi kenn ki euh, Fabinho kenn ki Salah beneen bi nag moo di Sadio Mané moom moo dugal li nga xamante ni moom moo di troisième bii bi ba baat ñii nii di cité nga xamante ne ñoom la doon euh, taseel démb. Amina Ndiaye démb da ngay am fier ni dër bu ñuul nga yor démb démb da ngay am fier ni Sadio Mané sénégalais la te yow sénégalais nga ndax lan. jikko gaynde gi ndax lan mën-mën gi ci terrain bi jom bi ak fulla bi ak di muy wane chaque jour doo ma yóbbul dara te loo ma may ma jël Amina. loolu dafa dem ba nekk habitude ci ñun ñuy gis Sadio Mané muy def jaloore euh, ci digg terrain bi dafa dem ba nekk habitude habitude ci ñun nekkatul loo xamante ne dañ koy gis naan wooy defati na ko non noonu non ci la dëkk te tarkalla macha allah bu yàlla nee waaw day jëm kanam. noonu la daal di demee Amina Ndiaye suñu sélectionneur national Aliou Cissé xam nga ñu ngi waaj match ñu ne Congo Amina Ndiaye. wala xamuloo woon loolu. match qualification la bu war a am fële na la ci Thiès kii nii di Aliou Cissé nag yëkkati na ay kàddu di ko jëmalee ci match boobu nga xamante ni moo war a jox diggante at Congo nee na nag match bi dafa nekk match piège pour ñoom. noonu la daal di demee match PSG ñu ñuy xamal ni que match bi ci stade bu Lat Dior lay am à partir de 18 lay am Amina Ndiaye muy match boo xamante ne nii Sénégal mi ngi ci risque piège Amina Ndiaye loolu la ñu Aliou Cissé wax daal. loolu la ci wax mais nee na nag les lions au complet ce lundi fële na la ci stade Lat Dior bu Thiès. noonu la daal di demee Amina Ndiaye ñuy woo sénégalais yi ñu ñëw répondre en masse ñëw nag su soutenir ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy suñu ay fierté ñoom ñoo ñuy représenté fu ne ci àdduna bi. ñaareel bi ñu jàll nag ci journal bu record journal bu record nag tey coowal ballon door bi la ñu indil Amina Ndiaye est-ce que xam nga ni vote yi jeex na. Euh, vote yi jeex na samedi bii la jeex nee nañu am nañu 180 votants résultat yi nag mi ngi war a génn le 2 décembre incha allah ginnaaw loolu nag ñoo ngi wax euh, ci ay rago naan ki fi teg tànk moo nekk gum euh, Sadio Mané Messi ak Cristiano Ronaldo. Amina Ndiaye noonu la demee Amina Ndiaye ñun daal Amina suñu Sadio maane bi yàlla nañu ko suñu boroom sàmmal. suñu borom kaweel ko ba mu kawee ndax bu demee ba ñu koy boole ci podium ci podium bu am Messi le maire joueur de tous les temps Amina Ndiaye ak Cristiano Ronaldo mi nga xamante ni moom moo triplé Ligue des champions Amina Ndiaye ballon d'or bi lim ci am moom Messi ñoo ci la ku nekk 5 Amina Ndiaye kon Sadio maane gàcce nga la am. Euh, Sadio Mané national Sadio Mané international Sadio Mané mondial Sadio Mané universel incha allah ballon d'or bi day ñëw. noonu la daal di demee Amina Ndiaye Sadio fépp Sadio Mané partout kon Sadio merci ba tey nag record sax amee Amina Ndiaye bit bi nga xamante ne moom la Sadio Mané dugal démb moom la ñëw ne ci ray photo daal di koy posté nag ci kanamu journalam Amina. troisième bi bi la dugal ginnaaw ba mu doon jongante ak waa Manchester City démb mu nekk nag 3-1 match boo xamante ni neexoon na trop te métti mais fa woon na woon rek gàcce ma suñu Casamance bi. noonu la daal di demee Amina match bi jeexee ci 3-1. muy match boo xamante ne ni metti woon na torop ci début bi mais dem nañu ba ci biir Amina Ndiaye sénégalais bi classé match bi jël match bi sàmm ko détail par détail fu ci ne mu am lu mu fa def ba équipe bi génnee ndam. man dama naan ballon d'or bi sax moom bu desoon ci man la kenn du ko voté ndax xam naa ne Sadio Mané mooy ki koy mérité macha allah. noonu daal di demee Amina Ndiaye waaye beneen doomu Sénégal ginnaaw bi mu ratee penalty ci seen match contre Paris Saint-Germain pour mu qualifier. wala pour mu égaliser ci match Ligue des Champions ba di woyu turu Mbaye Diagne Amina Ndiaye l' international sénégalais journal bi ñuy xamal ni que sataraay bëggul bëggatul mbay Diagne waaw match boobu metti woon na trop tey penalty boobu moo nekkoon seen dernier euh, espoir ba ñu mën a égaliser ak ñi nga xamante ni ñoom lañ doon taseel nekk na nag affaire boo xamante ni metti woon na trop joueurs yi ak supporters yi ba tax na ñu ko doon clash moom sax excusé woon na mais tey nag journal record dafa xëy di wax ni ne euh, Galatasaray nee na soxlaatu ki nga xamante ni moom moo di euh, Mbaye Niang waaye nag waa Galatasaray mën nañu teey te xam ne xale la boo xamante ne Amina Ndiaye mi ngi def ay jalooreem yu mag ndax pelenta penalty boobu mu rate moom moo ko cherché moom moo ko am Amina Ndiaye teg ko am audace teg ko pour dugal ko yàgg na ko dugal Turquie Amina Ndiaye xale la boo xamante ne nii day def ay jalooreem fu mu mës a nekk wala fu mu mën nekk ci àdduna waaye suñu borom bu ñëwee ak ndogalam dañu koy nangu nañu jàll nag ci li nga xamante ne moom mooy consommer local Amina Ndiaye consommons local journalu suñu làmb Amina. comme ni mu ko daan amalee saa su nekk rek suñu làmb day xëy di fësal écurie yi tey nag HLM Guédiawaye la indi foofu doon nga xamante ni franc rouge foofu la nekk ñuy wax ni nag amoon nañu quatre combats ci saison bi deux victoires ak deux défaites seen balance bi dafa équilibré. naa Ndiaye ay xale yoo xamante ne nii xale yu mën a bëre la infrant rouge mooy xale boobu nga xamante ne Amina Ndiaye moom mooy ñëw bëre si stade Iba Mar Diop Guédiawaye gépp fàq muy xale boo xamante ne ni ñu ngi ko doon dégg ci États-Unis waaye xale la boo xamante ne am na mën-mën. am na mayu yàlla te bu bëree mu neex bu feccee mu neex xale la bu jar a bàyyi xel waaye ki nga xamante ne ni moom mooy Maawo Amina Ndiaye Maawo mi nga xamante ni moom moo nekk ci écurie Soumbédioune Maawo moomu day Amina moom moo indi woon Diène Kaïré ci combat bi passé Maawo daal dafa mel ni dafa bëgg a ber écurie tuddee ko Soumbédioune numéro 2 Amina Ndiaye. Maawo loolu la xëy nag di wax dafa riposté wu sax nag tey sonné l'alerte te naan moom de dina créer beneen écurie écurie boo xamante ni mi ngi koy tuddee Soumbédioune dëgg. waaye nag naa Ndiaye man écurie Soumbédioune bu njëkk dañ fa daan gis ay Kaïré 2 dafa gis ay xale yoo xamante ne nii tarkal la macha allah Amina Ndiaye xale yu mën a bëre ba tey xale yooyu ñu ngi fa waaye yaakaar naa ne gunge bi moom moo des ndax bu njëkk dañ doon gis suñu papa Kaïré ci ginnaaw xale yëpp bu xale yu jógee papa Kaïré day jóg mel ni moom mooy bëre ñu ngi fàttaliku keroog ba jën Kaïré di njëkk a bëre premier combat dafa daanu waaye la mu indi ci stade bi Amina Ndiaye ak ay mag yu ko topp ci làmb ñuy ay magu làmb yoo xamante ne nii bu ñu toppee ab gone di nga am jom di nga am fulla di nga am fit Amina Ndiaye dinañ fa gis ay bébé jën dinañ fa gis ay xale yu bare bare bare bare ñu jàll nag Amina Ndiaye ci lancé roi des arènes Amina Ndiaye di wuyoo ci turu Eumeu Sène daf du wér day tane rek Amina ay shinga moom mi nga xamante ne nii ci moom la gone Parcelles Assainies bi doog a jëlee roi des arènes bi bi mu daanoo nag ba tey gisuñu promoteur démarché ko dara gisuñu ko moom mu waxu ñuy laaj ndax Eumeu Sène day pause saison deux mille dix neuf deux mille vingt bi wala day jël combat fin saison. daanu na pett coronam ci saison bii nii Modou jël ko may nekk na xale boo xamante ni dafa am jom xale boo xamante ni dafa mën làmb mais tax na nag saison bii ñoo ngi laaj ba xam Eumeu Sène ba mu jógee ci defet ba tey kenn déggu ko kenn laaj ko kenn déggul tamit moom tamit mu laaj kenn ñuy laaj ba xam nag saison bii moom mu di Eumeu seen ba xam euh, da koy def pose ba beneen yoon comme saa mu ñëwaat en force. Amina Ndiaye bi mu daanoo ba tey benn combat rek lañ ko doon dégg ñu ciy wax bi mu ñëwee tamit dafa coupé débat boobu moom Balla Gaye numéro de demoon nañu ba naan bu ñu leen fayee xaalis bi ñuy laaj ñu bëre mais Eumeu Sène dafa dem ba ci biir moom mu def sorti ne bëriwul ak Balla Gaye li mu waxoon mi ngi ci ba léegi kon daal ñu jàpp ni Eumeu Sène fi mu toll nii Amina mi ngi ci ruqam rek toog. xam nga danga daan toog fii mën la làmbay boole ku nekk mais man gëm naa ni kii nii di Eumeu seen ak Balla Gaye euh, dootuñu bëre ndax keroog li ñu waxante fii rëy na lool kii ni ko man suur naa la ni ma suuree sàngara kii ni ko suur naa la ni ma suuri araamale lan ak lan ak lan di nekk genre wax yu ñaaw yoo xamante ni daal ñoom ñaar gëm naa ni kenn mënatu koo génn sa gémmiñ ba pare làmb di leen boolewaat wala sax xaalis di leen boolewaat pour ñuy bëri Amina Ndiaye mbër waxante na fi lu ne daal di bëre waaye ñoom ñaar nag Amina seen combat bu dee ba ngaa dégg dëgg rek amateur yi fi mu toll ñoru leen combat bi leen ñor mooy Balla Gaye numéro 2 ak Boy Niang wala Balla Gaye numéro 2 ak Modou Lo ba tax na journal bi moom la ñu indil ci journal ba Balla Gaye am naa yëg ci na ci ay kàddu nee na moom fixé wul benn adversaire mu ngi fii toog ndax làmb làmb moo ko fi bàyyi ku ñëw baax na noonu la ko waxee woon ci émission boobu célébrité en ligne moom Balla Gaye 2 mi ngi yëkkatiwaat ay kàddoom di ko jëmale ci adversaire yi nga xamante ni moom lañ koy euh, boox depuis ba saison bi tijjee ba tey moom Balla Gaye nag nee na amul kenn koo xamante ni fixé na la wala mu indexé la ni yow mi laa war a bëri par la force nee na ku ñëw baax na. Amina Ndiaye ku ñëw baax na loolu la ay kàddu doomu Double Less bi yëkk ci Amina Ndiaye xale la boo xamante ne nii boo ko séenee muy ñëw doo laaj ca ana mbër mi. xale la boo xamante ne nii bu ñëwee ci bés da ngay xam ni Balla Gaye numéro 2 ñëw na bu ñëwulee ci bés da ngay xam ni Balla Gaye numéro 2 ñëwul ci bés boobu Amina Ndiaye waaye ki nga xamante ne ni moom mooy le géant du Bawol Amina ginnaaw bi amaa Baldé delloowee avancé am Modou Lo di ko xaarloo gisuñu ko ci lenn walla ñu dégg ko ci lenn Amina Ndiaye Tapha Tine mi ngi ci journal bi muy koo xamante ne ni am na dayo mbër am na jikko mbër day jëf-jëfi mbër bu bëree nga ni moom la bu xeexee nga ni moom la mais ñun suñu problème na Ndiaye mooy lan moo tax Tapha Tine du bëree wala du bëri ay adversaire ci làmb nekk na loo xamante ni journal suñu làmb mi ngi xëy di ko wax ginnaaw ba ko Ama Baldé rejeté kii nii di Modou Lo mettre ko en attente Lac de Guiers moom nee na du ko laal Gris doo wax waxi nopp ñuy laajte nag ba xam tafaatin dafa nar a def départu ba am arrivé ak Qatar xatar bi nga xamante ni jóge woon na ko ci saison bi ba pare taxaw temm di xaar promoteur tëggal ko làmb ñuy laajte nag ba xam ak li ko dal nii yëpp ñu ko rejeté ñëpp moom est dina am combat ci saison bi li Amina Ndiaye Tapha Tine xale la boo xamante ne nii bu jugee reefan gi yëpp lañuy jug bu jugee Medina gi yëpp dañuy jug waaye gone bawol gi yëpp ay jug Amina Ndiaye xale la boo xamante ne nii am na dayo mbër bi wax naa la ko léegi am na fugu bi waaye lan moo tax Tapha Tine du bëre pour man Amina Ndiaye du dara kattan gi nga xamante ni suñu borom may na ko ko ak mat gi nga xamante ne mat na ko mbër man jàpp naa ne looloo tax Amina Ndiaye ku ne naa la du ma bëreeg moom waaye du palmarès du dara Amina Ndiaye Tapha ko nekk ñaari la daan question boobu noonu nga xamante ni suñu làmb moom la ñuy posé seen bopp man mën naa leen cee tontu kii nii di tafaatin du def année blanche Omar man maa la ko wax. Amina Ndiaye yow looy laal. non dama am fu ma ko teg dama xam ne xale bi entraîné na xale bi taxaw na xale bi ñëwaat na xale bi pare na pour daan képp koo xamante ne jox nañ ko ko te na ma ni man promoteur yi bàyyi nañ ko xel. noonu la demee bi muy bëri ak Yékini junior bu mujj bi dafa firndeel lépp Amina Ndiaye bi muy njëkk a bëri moom stade daf ko yëkkati ba taxaw dóor ci suuf. mu jëlaat ko Amina Ndiaye dóor ko mbot moo xamante ne géej naa ko gis ca jamonoy falang. yaa ngi fàttaliku keroog ba ñuy doxantu fële suñu mbokk yi nekk fële lan lañ ñu wax làmb ji dafa neexatul parce que euh, VIP yi ñoo nangootul jël xale yi ndaw te instant yi nag bu ñu jëlee tafaatin bëgg ko écarter gëm naa ni làmb ji day day day gën a nakari daal. ay combat yoo xamante ne ni ay combat yu neex la Amina Ndiaye waaye journal suñu làmb chaque jour nag daf ñu indi lu bees bu ñuy xool ba ñu ciy mujj wax. les VIP de la lutte simple la ñu indiloon tey tamit lool la ñu indilaat Adama Diop mi ngi ci journal bi ak Ngel Dione Amina Ndiaye. journal bi suñu làmb tey loolu la ko tëjee Adama Diop Ngel Dione ñu nekk ay VIP euh, la lutte mu nekk ñooñu nag di mbokk Boucar Ndour yi ñooñu xale yooyu nga xamante ni fu ñu duggee ci arène lekk tooyal seen ngem bu def lu doy def lu jaar yoon. def loo xamante ne ni soxal da ci seet Amina Ndiaye Amina Ndiaye Ngel Dione ak Adama Diop ay xale lañu Adama Diop bu duggee ci làmb séeréer sa nga xam ne dugg si na. bu bëree mu neex bu tuusee mu neex waaye ngel joon Amina Ndiaye bu bu bu su baaxoo bay wàqi Amina Ndiaye xale bi lu neex lay wàqi ñoom ñëppay kontaan ba ku ci mel ni Boucar Ndour borom Lutte TV nga xamante ni moom lutte simple séeréer si lay bëggee fële na le euh, ci stade. foofu loo koy bëggee ci arène nationale wala fii nii arène Adrien Senghor. Adrien Senghor foofu la koy amalee saa su nekk ba tax na nag Omar euh, dañu yem ak fii nii ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñuy bëgg saa su nekk ma lay tàggu yow mii di la jox dig daje ba suba incha allah. noonu la daal di demee Amina Ndiaye ku wax lundi boo waxulee mardi gore woo Amina Ndiaye te tey la lundi suba la mardi dañu leen jox dig daje nag ba suba ci mardi gi ak jàmm incha allahu rabbi jaa ngeen jëf.